tindelanda na ndako na ye na malu na awa kale sana nga wa monako kuno kuine ku dezo stivi ngata waishi ku dezo stivi nga wayeko kung'anda kwa mami wakwa abibas bapeezo nga waayako kokwine balelandako na namba wandi nuko kwine kung'anda waabwe nga tawaishivako uyako kunguno kwine ku tv nga walandako uri kuisa ine ndana yakuisa kumona kuwine natampa nalilwala niwine nakwine kuing'anda shaishi vene vamami vandi valifani niwine amina please please I'm, please i'm talking for you my sister nowine aminata nalilakonali tampa sana ndefu ayokumonako nga walufu nga tawaufa ndefu ayokumonako uli kwisa nga unkolande nga tawakweta ku zambia unkolande kona kwini thank you very much sëñ Moussa mel na ni bàyyam ba Serigne Cheikh ñu koy ñaanal yàlla di ñaanal yàlla bàyyam ba ñoom ñëpp ñu àndandoo gudd fan sokkorloo ni asamaan ak suuf waaye itam nag eh, lépp loo xamante ni ñu ngi koy def ci askan wi ak taalibe yi ci seen ginnaaw yàlla na yàlla fay leen ko eh, te diine rek fay leen ko ndax xam nañ ni eh, diine rek moo leen ñor. may jéglu nag bu baax a baax gis nga abs de temps bi waaye nag gis ngeen xale bi itam làkk na ci kàllaama zambien euh, su ko defee rek ñi nga xamante ni ñoo nekk fële ca Zambie te di ko dégg xëy na peut-être mën ko ci jàppale dara kon ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ci courage bi euh, di jaajëfal képp koo xamante ni yaa ngi jéem a jàpp ci mbir mi ngir mu gisanteeg rakam yooyu le waaye nag dama leen wax ne leen sama kër gi yëpp dama jël deux semaines yoo xamante ni xale yi ñoo ko moom ci kaw xale yooyu itam jaadu nañu dalal xale loolu moo tax tey dama dem jëli ji sama invité boo xamante ni xale bu ndaw la tey defe naa ni euh, façon bi moom euh, mosuñu ko gis ci kër gi waaye nag euh, lu bees la ci donc te yéen a moom seen émission dama lay bàyyi rek na nga nuyoo ak mbokk yi nga xamante ni ñu ngi toog di la seetaan. merci Soxna Mbayang ñu ngi leen di nuyu. Mhm. di am mbégte ñëw tey ci émission bi en mhm. tant que ndaw. Mhm. toogal fi ndaw Sénégal yëpp toogal fi ndaw réew mi yëpp di nuyu téléspectateur ak téléspectatrice su 2STV. di am di rafetlu gis-gis bi ngeen am. fas yéene ñëw bokk ak yéen gis-gis bi. ndeysaan am na solo am na solo euh, dañuy doon def benn mbir. yow ki sa wàllu bopp yaa ki nga xamante ni euh, ñoom ngay àndal di liggéey muy Pape Diop ak Ndeye Marie Diallo ngeen ànd bokk ko seetaan. Mhm. ngeen def initiative bu rafet. Mhm. Euh, dañuy wax ne ñun euh, du ñu sexal kenn lem. Mhm. waaye nag ku ñu defal ku ne sañ nañ laa dalal. laaj la lan moo tax nga def lu mel nii ba ñenn ñi ci ay nit itam. xool exemple bu mel nii def ko. di jàppale askan wi yéen ki seen wàllu bopp dangeen toog seetaan ko mbir mi naka la demee ci yéen. xam nga dafa nekk gis-gis boo xamante ni dafa dëppoo ak ñun suñu gis-gis. ndax suñu gis-gis mooy gis-gisu président euh, Pape Diop. mooy dimbali askan. mooy taxawu askan. mooy saafara jàngoro askan bi. ñu toog di ko seetaan ñu fekk si ko aussi si gis-gis boobu ndax xam nañ ni loolu bu koy def ndaw ñi la ko defal. ñu seetaan ko mu daw yaram lool mu ne lii de bu ma sañoon dinaa ci participer. donte bugguma sax di def di ko def ci télé yeeg ci rajo yi mhm. mais comme agsi na ba fii te mhm. war naa ci taxaw mhm. dinaa ci taxaw te yéen ndaw ñi laa bëgg ngeen dem taxaw ko parce que seen moroomu ndaw la si la ñu ma yabalee euh, moom ak soxnaam euh, madam Diop Ndeye Marie ñu ñëw fii fas yéene taxaw euh, soxna si nga xamante ne lii dal na ko te yéene ko ko woon ndeysaan am na solo mais en tant que jeune yéen jur lan lay def ci yéen balaa ñuy dugg ci détail yu dimbal beeg yooyu en tant que jeune waajur lan lay def ci yéen way waajur dafa nekk référence. Mhm. déjà si jeune. Mhm. parce que ki nga xamante ni booy gane si àdduna ñoom ngay gis. Mhm. ñoom ngay xam. li ñu la won ak fi ñu la teg. ci yoon boobu nga mën a jaar. ba mhm. ba ngay xam ak di xàmmee. Mhm. kon waajur euh, dafa nekk euh, reen bu nga xamante ni. Mhm. moom lañ ñu jëmbatee moom lañ ñu suuxatee. ñun bu ñu màggee mën a nekk branche yi. mën a euh, fekk suñu waajur ci li nga xamante ni moom la ñu séntu woon si ñun. bu ñu sañoon nag jur boo xamante ni moom la ñuy am. dafay nekk jur bi gën. dafay nekk jur bi ñu jaarale ci yoon bi gën. parce que jàpp nañ ni jur ni muy bëggee njabootam. amul keneen ku koy bëggee bëggee nit. Mhm. ci ci ci ci àdduna mhm. donc waajur euh, dafa am solo lool si ñun nekk suñu référence mhm. nekk li nga xamante ni euh, mooy ñuy wan yoon am na solo waajur loolu mooy waree fam ci yéen kon tey boo toogee Amina nga gis euh, waajur boo xamante ni dafa dafa sàggane doomam xam nga yaay en général dañuy wax ne du sàggane doom donte dinañ gis yaay yoo xamante ni sàggane nañ seen doom condition mooy tax mhm. mais baay bi nga xamante ni xëy na peut-être dem na bitim réew takk fa jabar am moom doom jël doom yi indi fi ba pare mhm. sàggane boobu baay tey lan nga koy wax ci ñaan ko parce que mi ngi toog di ñu seetaan mhm. ay famille mi ñu ngi toog di ñu seetaan taxawaayu famille bi itam ci entourage bi dafa am solo ci xale bi donc lan nga may dénkal baay boobu waaw baay boobu dañu koy ñaanal suñu boroom mu indiwaat xelam ba mu xam ni euh, njaboot gi ñu ko jox <laughs> moom mooy seen sàmm <laughs> moom moo leen war a sàmm <laughs> te mu xam ne alaaxira tamit dina ñëw mm. suñu borom laaj ko ana njaboot gi ma la dénkoon ngir nga sàmm ko donc ñu ko mën a wax xam nañ ni waajur du bañ doomam donc dañ koy ñaanal suñu borom di ñaan sénégalais yi ñaanal ko àdduna ñaanal ko ba xelam dellu si ba mu euh, dajalewaat njabootam googu def ci ñoom li war am na solo dajalewaat njabootam def ci ñoom li war am na solo mais Amina ba tey ñàkk yaay am na xale yoo xamante ni victime lañu ci ñàkk yaay wala victime lañu ci ndénkaane balaa ñuy ñëw ci wàllu ndénkaane ndax damay faral di wax souvent ma ne xel puso mag da koy for ndaw da koy for mhm. te tubaarkàlla macha allah li nga fi jot jot a eh, génne eh, xam naa ni ki la yónnee te toog jàkkaarloo ñun di ñu seetaan rëccuwul yónnee bi mhm. mais faaw nga ñëwal ñu ci ñàkk yaay ni muy def ci xale. Mhm. xam nga yaay dafa nekk loo xam te ne dafa am solo. xale bu nekk boo sañoon da ngay am say waajur di màggaaleeg ñoom waaye nag comme li ma wax rek lépp suñu boroom la suñu borom mooy dogal xale bi juddu yaayam wan ko ginnaaw donc dina metti ndax dafay am lu ko manqué. Mhm. parce que nit lu waroon ànd ak yow. nekk euh, li olof naan xër bay téye sàkket daf ko war a jege. donc nekkoon loo xam ne daf ko war a jege. téye ko tete ko. Mhm. su ko soree daf koy manqué. Mhm. dina ko manqué lool dina am lu manqué ci moom. surtout bu ko yàlla suturaalee nag. mu am ñoo xamante ne taxawu nañ ko taxawaayu yaay. toppatoo ko. yiir ko bien que dina ko manqué mais du ko manqué ba di ko lor. di ko lor waaw am na solo am na solo gis ngeen ko mbokk yi bunt baa ngi noonu defe naa ni mën nañu continuer di jaar indi seen xalaat waaye tam lan la ñuy dolli ci li nga xamante ni moom la Amina wax waaye Amina eh, nga ñàkk yaay ba pare walbatiku tey gis nga sunu mbokki góor ñi eh, defe naa ni jot nga xam ci àddina tuuti mm-hmm. wala boog jot nga gis wala nga déggandeem mm-hmm. ay mbir yoo xamante ni dafay dëppoo ak eh, li ñuy waxtaane maanaam ñàkk yaay ba noppi walbatiku tey bàyyi takk na beneen soxna am na ci yeneen doom doom yi nga xamante ni moom la jëkk am mu am noo xamante ni daf koy débarrassé wu ci ñoom loolu yow boo ko gisee nan la lay def waaw loolu metti na trop ndaw mhm. na yaram mhm. waaye man ba tey duma wax baay ji mhm. yaay ja nga xamante ne ay doomam ñi ngi fa mu xamante ni euh, ñoom ñi seen yaay jël yàlla ba mu koy jël tàgguwul moroomam tàgguwul seen yaay tàgguwul moom it ma nga xamante ni yàlla bàyyi na ko fa mhm. te bu neexoon yàlla aussi mu jël ko moom bàyyi fa yaay ñële te xamul ndax suba yàlla dina ko jël ay doomam tumuranke macha allah kon bu xamante ni euh, dénk nañ la ay njaboot mhm. muy njabootu jàmbur mhm. da nga ci war a was lu àq def ci lu rafet ngir ëllëg loolu nga fa jëmbatoon ñu mën la ko fay ci sa njaboot